Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala xam ni di daan seen doole te am am bu nga ni tey ñu ko bàyyi ci seen réew ni réew moomu tey lii Amérique mel nii Sénégal jot na mu mel ko moom ci boppam parce que du ay jinne du ay rab ñoo defar Sénégal euh, ñoo defar Amérique ay nit ñoo ko defar te nit yooyu ñu ngi fi jàng am seen i tey suñuy doom dem nañ fu nekk ci àdduna bi jàng xalaat mooy tabax te xalaat boobu lu koy maye ci alal moo xam ci or moo xam ci jamaa moo xam ci zircon moo xam ci pétrole loolu yëpp yàlla may nañu ko ci contrib bi nga xam ne Sénégal la bu ndaw la ñu war mën a defar lan moo koy defar njiit yu am xel njiit yu am yërmande njiit yu xam ni du nekk ñoo xam ne ñu am yëfu civilisation lañ wala ñoo xam ni dañuy bon xañaane ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ñëw parce que ñun fii tey di xeex xam nañ ne ci suñu àddina la ca def bëriwul parce que koo fi gis tey bu taxaw ci ñun ñii dem ni am nañ lu mat ñeent fukki at te ñeent fukki at soo ko amee yonent bi sallallahu alayhi wa nee na waxambaane foofu lay commencé kon waxambaane kooku tey lépp luñ ci am rek bénéfice la bénéfice boobu nag tey war nañoo xool suñ doom yi ak ñeneen ñuy ñëw ñu bañ leen a xañaane ndax ñoom ñu fekkee li nga xam ne mooy ëllëg ci bànneex boobu tey nag ku ñu ko teg mooy kan mooy ki nga xam ne dinaa ko wax ne ko président de la république muy Macky Sall parce que suñu président la ndax dañ koo fal bañ koy fal bokkoon naa ci ñi nga xam ne tey ci année boobu ci Ablaye Wade ñu doon sànni xeer ñu nekkoon biir ville bi xeex kon bokk naa ci ñu ko fal nekk ak moom di liggéey ak moom depuis 2012 ba ci gàmm gii passé ci laa na ko bàyyi bàyyi ndax damaa foog ne nit ñi ngay àndal Kaolack laa am man Kaolack laay ciicaru lépp loo xam ne def nañ ko fen nañu fenaan ñu ci biir Kaolack mu baal ma ci kàddu boobu parce que li tax loolu mooy dafa ñëwoon ne ñu daf ñuy indi trois cent milliards pour defar Kaolack boobu ba léegi teg ci suuf Rifkin pour defar ko boor boobu dañoo dem ba ci biir mu yëkkati def ko lépp lum la wax du dëgg muy dugg si ci yërmande lañ ko falee teguñ ko métit waaye nga dem ba jël sa peuple xañaanee leen soxalee leen bëgg leen a rey loolu dafa baaxul kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk muy monsieur Dramé monsieur Tounkara Marie Jeanne ak ki nga xam ne mooy Conté yéen ñëpp ngi seetaan seen liggéey saa su nekk waaye seen liggéey ñu ngi koy rafetlu te di leen wax ne jàpp leen kii dem dem na ba pare kii dem dem na ba pare te ñu ngi koy waatal ci yàlla ne ko ci àddina du am lu ko neex ci ay njabootam dana gis lu koy metti comme ni ñu ko tegee waaye dina gis ci àllaaxira du génn safara mukk ilaa yow parce que yàlla du baale yenn yenn baale yi du ko baale parce que nit koo xam ne addina nëmb këpp kenn deful la dara nga toog rek ne sama peuple bi naa leen jël najotaleen xaw ma fitna googu ñëw di ko teg fenn ñu jëm ci koo xam ne lu tax ñu ànd ak moom moo waxaat ko mu leer kilifa yiy wax kuy doon su fekkee kilifa nga da ngay ñëw àtte man doomu sëriñ laa Cheikh Ibrahima Niass mooy sama baay may caatu Mawlaana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima maa ngi wax ci kaw musuma tukki laaj addiya caméra yaa ma tiim Afrique yëpp boo laajte MC Niass ci taaliba Baye musuma gis ma dem laaj addiya sama benn mag musuma may 1000 francs ba ma juddoo ba léegi lépp lu ma am maa ko ñefeel sama bopp jaar France jaar naa maa xoslu sama bopp ba toll fii sant naa yàlla ci loolu yàlla may ma ta terewul Dakar ga ma nekk damay xëy di sol sama pantalon di dem ci boor yi di daane sama doole ku ma mos a jox rek ne ma dugg naa ci bureau ministre wala dugg naa ci bureau maire wala ku mën ci doon rek na ma ko wax. Aliou Sall bii ñuy wax ne maa taxaw ñuy génne vaar boobu ma la ko am taaliba Baye bu tudd Baye Diouf. mu doon gàmm googu maa koy def chaque jour vidéo ko am ci ba mu mu may Baye Diouf kattan yëkkati ko ko Aliou Sall taaliba Aziz Sall taaliba Baye ba ci ay dëkk moom doomam yëpp ay taaliba Baye la euh, moom ay rakam moom Macky Sall ma xam ko bu wax Souleymane Gassama ba muy ñëw Mauritanie di jàng fekk na man ma mokkal alquran mu ñëw di jàng si te mag la may ñëw seen kër xam bàyyi Macky Sall xam ndeyam xam ko bu baax dëkk ak ñoom Fatick Macky Sall na ma man trente personnes ci Shababul Fayda mooy année 2007 boobu mu ngi nekk intérieur mu ne kenn du dugg Fatick ànd ak Serigne Mamour ñun ñoo tëjoon këram ba damm ko benn jigéen ñu jàpp kenn suñu éléments yi ñun ñu ñëw joxe suñu bopp këram ànd bi médecin yi nii tey nekk avocat gouvernement moo ñu àtte keroog moo nekkoon suñ defa euh, moo nekkoon suñu avocat mu nekk dix heures ba jëm quatre heures xaw ma trois heures du matin ñu sommes nos libérés kon dama bëgg a wax ne liñ gis ci Sonko ak kalifa yii di wax nañ àtte parce que Sonko amul doole ju muy demee di doore amul doole ju muy toogee di ay grenade amul doole ju muy demee di escorter nii wala naa wala nangam ki nekk mooy président Macky Sall moom moo fi nekk Macky Sall ci boppam nag moom président moom la Serigne si war a waxal mu wàññi loxoom ndax kuy dóore day ci cheikh da ngay atte liy dëgg waaye maa ngi leen di wax na benn baat samay mbokk yi nga xam ne tey ñoo toog ci pouvoir l'islam ñoom la ñuy ooyee sëriñ si nañ xam ne alquran mu ñuy wax ne atamuru naasa bil birri wa tansawna anfusakum ñooñu nga xam ne dañuy digle lu baax di fàtte seen bopp nañ xam ne ñun ay doomu sëriñ lañ waaye nag nañ xam ne gënuñ kenn man mii de gënuma kenn ndax tey fii ma taxaw nii yàlla mun na ma jël ëllëg di ma watat di ma dugal ci safara si jël kenn di ko watat di ko dugal ci àjjana ji parce que nekk doomu nit ku baax taxul nga nekk nit ku baax nit ku baax da nga nekk góor nit ñi bu leen jënd bëgg leen baax xaalis bu ñu leen di jox seen i taalibe mën nañ leen jox lu bëree bëree bëri te ñoom ñoo leen ko mos a jox kon gouvernement amul lu ñu ëppale man damay naan gouvernement ëppale wu ma kenn ëppale ma Macky Sall nag dama lay wax na la ak gars yi Sénégal ne leen Sonko du sori du dara xam nga Sonko lan la gentleman la boo xam ne dafa ñëw jullite ñëw incarné ñu dëkk ñu gis dëkk googu ñëw ànd ceeg moom foofu nag loom lu ñëw nag incarné mosuñ koo gis ba Sénégal nekkee ba Sénégal ba léegi ki ñëw ne nawle la àndoo nawle waaw kooku doo ko jàppale su tubaab bi ñëwee nga ne ko cinquante cinquante wala nga ne man jox naa la vingt jël sama quatre vingt dégg li nga moom ma ne bu ñàkk fayda jaral nañu suñu bakkan ñu rayante suñu bopp ñun nag du ma de daw nañ waaye ay général général su taxawee yow yaa am système bu guerre da ngay taxaw di wax nit ña fa nekk di leen wax système bi mooy demee ndax général yëpp suñu leen rayee nan la ñuy demee suñu combat bi moo tax ñoo la ko te nag lim ñu xañ te lim xañ xañuñu ci dara lu dul mbon moom la Macky Sall nekkee ci Sénégal waaye ñi ngi ñaan yàlla yow mi nga xam ne yaa am may tey maye yàlla nga ñu yëkkatal Macky Sall jëlal ñu ko te soo ñu ko jëlalee ba mu wàcc tamit yàlla nga ko wan suñu am loolu laa amoon